suñ dee waxtaanee ñu ne diw daal dëgg-dëgg mbiram yëpp def ko tegoon ci yoon parce que am na fi ay ay anciens journalistes yoo xam ne yile ba léegi dañ leen di waxtaanee mosuñu jàdd yoon. du ñu nangu ku leen corrompre. du ñu nangu ku leen dugal ci loo xam ne li waru leen waru waroo leen ciy dugal. chaque jour ñu ngi sàmb seen bopp ndax lii tey moom la ñu bëggoon. te tey te tey tey ñooñu tey bu buñ dee yëngal dara ci réew mi wala ñu koy nas dañ leen ciy boole. loolu nag sàmmonte ak sa bopp moo ko mën yëf yi nag nekku ne dëgg-dëgg danga nga ciy leb la bor wala nga fayu ko ci wala mere ci nit wax ko lu ko neex wala nga jaar ci nit ne ko dëgg-dëgg waxal ma nit ki nangam. commandité article. loolu c'est pas normal nit daal day sàmboonteeg loo xam ne li lii su àggee ba ca cëppaandaw ga xam na daal li ko waroon ci journaliste boobule ah, moom def na ko mais tamit war naa laaj euh, sama jigéen bi ba xam journal dina waat laataa mu ci dugg du waat kon war nañ ko inscrire muy waat comme ni médecin amee serment d'Hippocrate non non. non non war nañu waat nag. <laughs> mais mooy mooy li ñuy wax sànq ba léegi journaliste bu président du journal en plein journal di lakk. di lakk di tàkk ah di lakk appareil <laughs> bi. ah man moo xam ne daal dëgg-dëgg moom. mais c'est comme géwél yi. Ah, géwél bu njëkkaan moo daan dem xare. waaw buur ak tubaab di xeex. Mm. géwél bi du yor xeej. te kenn du ko laal déedéet donc loolu ngay misaal ci liberté de la presse a nekk ci zone de guerre kenn du ko laal nekk ci marche nekk ci manifestation parce que mhm. moom loolu mooy un peu misaalu journée mondiale de la presse <laughs> li nga gis rek te nga te war nga ko war a war a nettali bu nu jamee sa géer ne ci côté gauche bi lañ ko jam dafa ter ter <laughs> waaw waaw. voilà fii lañu ko jame non non loolu loolu mooy yoon. waaye daal dëgg-dëgg dàq na waaj. waaye sa giir rek dàqul. dëgg la dëgg dàq nañu dàq ko. xeexee dañ koo jam. waaw dañ koo jam da ngeen doon yooyu yëpp. mais ñun dañ doon ñun daal mbay nous informons nous informons juste et vrai <laughs> merci beaucoup Naata <laughs> mbir mi am na solo donc ëllëg euh, dinañu euh, gën waxtaane ci suñu ay jotaayu xibaar euh, li nga xam ne ni mooy journée mondiale de la liberté de la presse fàttaliwaat leen ni tey duñu sori quartier général bi ci parti bi waaj ñëw ñu koy entamé dina bokk ci hors série yi ñu leen di jagleel at bu jot tey nag daañu dugg ci ëttub Seydina Limaamu ñu ngi seen Seyda Fat Bintu moom installé wu na ba pare mm. ñoom ñëpp def blanc ma kase ak verte bi xallu lislaam la laataa ñuy tàmbali waxtaan wi euh, bay dugg ci euh, ëttub euh, Sidna Limaamu mën nañu leen fàttaliwaat ni ndimbal yi ba léegi ñoo ngi koy joxe vingt 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 76 76 ak 88 628 22 22 ku dugg léegi dinañu ko dimbalee loo xamee ni euh, soit mën na doon dund panier bu def diwlin euh, def meew soble pombiteer euh, def masque def gel waaye mën nañu la ko jox xaalis ci numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi laataa ñu ànd ak Fati Dieng ci sujet bu am solo bi mu ñu indil tey ci découvrir jigéenu jàmbaar yi nga xamee ni ñoo nekk Sénégal allo. allo allo. allo waaw Pape Cheikh. kooku. ah man la Malick man la Malick Thior. yow la. Malick Thior Malick Thior. Malick Thior na nga def Thior. maa ngi fi rek maa ngi fi rek maa ngi fi jàmm baax. Malick Thior séeréer foo dëkk. man maa ngi maa ngi dëkk Yëmbal Fass Mbaaw. fanti. Yëmbal Yëmbal Fass Mbaaw. Yëmbal Fass Mbaaw fan ngay liggéeyee. waaw ah. fooy liggéeyee. man maa ngi liggéeyee Bargny laay liggéeyee Bargny. fan. ah Bargny doog da ngay jóge yëmbal Fass mbaa dem ba Bargny pour liggéey c'est bien saa nu ngeen def ak mbas mi baa yéen a ngi toppatoo seen bopp wallaay di dàqanteeg oto yi te oto yi lu ne ngi ci baa yéen ngi protégé wu di takk masque yi di euh, dandante waaw maa ngi takk maa ngi moom bu baax a baax a baax très bien très bien yàlla yàlla sàmm yàlla boo corona ah, <laughs> temps yi comme jamono neexul léegi dama lay dama lay dimbaleek benn enveloppe bu cent mille rek bañ la téye lu yàgg ci ligne bi. Ah, ah waaw waaw ko defee dina baax de faj moom dëkk bi moom tàng na trop. jeena kon quartier général may na la cent mille tegal naa la ci euh, boyet boo xamee ni def na kaasu café bu rafet ak kurus nga ñaanal ñu. ah waaw waaw yal na leen yàlla leen yàlla jàppale. te nga toog sa kër dañ la koy livrer ak rapidos. waaw d'accord waaw. bul quitté ñu jël la ci ginnaaw mën a xool naka ngay def ba jot ci xaalis bi ak li ñu la may euh, ci euh, quartier général bi am na jigéen boo xamee ni dañu leen bëggoon wane leeg moom mu ngi am 67 ans. moom day obligé di lay suuf si ngir di récupérer waat euh, euh, xeer bi euh, ci chantier yi béton bi pour di ko jaayaat loole mu am ci li muy jaay lay dundalee njabootam période bi nag liggéey daanaka bëreetul chantier yaa ngi wàññeeku est-ce que mu ngi wéy di am béton yi muy layee suuf pour jaay ko dundal ci njabootam on va découvrir ça ak soxna Fatou Dieng donc moom mu ngi tudd mati ba Euh, Sophie. Sophie Sophie waaw Sophie la tudd Sophie Sarr Pape Cheikh. Sophie Sarr voilà Sophie Sarr la tudd. ñun ko mhm. fekk euh, gox bu ñu naan gàddaay ci géejawaay. Euh, muy nag soxna soo xam ne Pape Cheikh wax nga ko si sa njalbeen mi ngi am juróom mbenn fukki at ak juróom ñaar coono àddina nag moo ko dab mu nekk nag nee na doomu aadama boo xam ne mënta tàllal loxoom yalwaat mënta tàllal loxoom ñaan jomb na dem fenn di fa wax soxlaam loolu moo tax nag waa góor la mënta ñaan loolu la wax nag muy dundun jafe bu metti ñu ànd ci ak Habib Faye bu rédaction bu télévision Futur Média moom ak Modou Diop ñoo ñu doxantu doxantul fële ca gàddaay ci géejawaay ñu dem seetaan soxna Sophie dellusiwaat léegi ci plateau bi. parce que 1952 laa judd booba ba léegi man liggéey rek laa xam dama doon fóot ba ma paasee mbindaanu dama doon fóot di fóot. ba 2008 ma doog a bàyyi fóot xam ne mag a ngi dëkk te bot yaa ngi lëndëm si mais ba tey mënumaa toog li tax mënumaa toog mooy lan damaa yor njaboot bugg a dimbale sama njaboot te bugguma itamit keroo ker ma ne fa salaamaaleykum may ma parce que may ma moom day yabloo nit ci lu bari dinañ la yab yab sa njaboot te nag du ko fi jar tant que doole baa ngi dund te imagine naa ne yàgg yàgg bés dina mos a ñëw suñu borom jël ma yàq yeeju moom yaram bi li ma ci dugal mooy bañ a toog te su ma toogee dinaa mere ku ma deful dara mën naa cee jaaree sax suma yaram bañ benn damaa yor samay set sama sët yi bugguma ñu xiif bugguma ñu mar liggéey bi ni mu tëddee fii mooy soo ñëwee laaj borom sànc bi nga ne ko ndax est-ce que yow mën naa laa layal nga fay ma mu ne la ah waaw su la neexee ñu waxaale ça dépend mën ngeen a wax sax ci junni si cinq mille mu fay la trois mille nga lay ko itamit ngir ñàkk pexe. metti na mais ma dékk ko rek parce que nit ki da nga war a gëm sa bopp parce que doomi man daal man nee naa jigéen fu mu mën a nekk rek war naa ñafe ñefe bul xeeb dara. heureusement bul def lu bon te bul sàcc alali jàmbur bul fen itam nanga nga direct rek lay bu jot sans dépend parce que lii maa ngi koy lay di ko dajale bu boromam ñëwee day jël li mu soxla li ci des ah bu laa biiree mu may ma bien mu fay ma rek. fii mu ne nii béton baa ngi ci biir dama koy gas. pour nga gas lii lan ngay soxla matériel bi lan la. matériel ak ak kii ak turel bu la jaaxalee nga jël xeer bi dóor fii mokk. nga gas. xamante ne xaw naa sori jal bi may lay di def ci siwo bi xale bu bu ma rombee ma ne ko say rikoko kaay sottil ma ci ci jal bi. mais doomu aaw yi ñoo ma bàyyiwut bu ma <laughs> su ma layee juróom benn fukki saaku ñu ñëw sàcc ñaar fukki saaku yi xam nga loolu arrasé wu ma xale yu góor yi ci bu rafet fii ma ko doon teg nii. borom kër gi ci boppam moo ma mujjee wax ne boo mënee déplacé sa saako yi nga déplacé ko parce que trois heures du matin trois heures du matin laa yegg gis kuy yëb sa saako yi ci sareet di ko yóbbu. waaye yaay booy loolu metti na de. Ah, métti na waaye lu waaye def boppam parce que borom mbaar mi kenn mënu koo nëbbu xam nga ne man magum jëmm 67 ans nga diju ci naaj bi di ñaq di liggéey di yaakaar loo yóbbu sa kër xale bu ndaw ñëw yóbbu neexul nooy def. xëyaat samay doom am naa juróom-ñetti doom. ñu ngi liggéey. ay doom yu jigéen la ma yàlla gën a may nag parce que doom bu góor bi ma njëkk am yàlla daa def muy daanu kiris muy daanu mbet fedin xam nga kooku daanaka bokkatut loxo dajul ginnaaw waaw loxo dajul ginnaaw te wax dëgg yàlla duma sa sama doom loo xam ne mënu ko. te yaay booy du yàgg ba mu tàllal loxo. ah déedéet Sarr laa sant yow it man laa sant Baye Sarr yaay Sarr ñu jur ma ci jom. yar ma ci jom te sama jom boobu dama koy deewaale saay bu ma yeewoo may naan sëñ Babacar doxal ñu dem nga may ma lu ma liggéey lu ma lew. ci bés bi nii fii mu ne nii mën naa yendu fii ba 5 heures ma ñibbi. chaque jour chaque jour bu naaj bi tàngee day mel ni damaa lekk kilo kilo ceeb sama biir bi. daa mel ni da ngeen bëgg ceeb nag de. ah séeréer man nag man séeréer rek laa gën a soxla. <laughs> te yow sama doom nga. mais su ma ñëwoon ci yow ñaan la ëllëg ma ñëw ñaan la gannaaw suba sama ñëw ñaan la mais sama doom boo ma seenatee may ñëw dangay làqatu a ah, weccet bi ma am ak kas néew su ma ko sañoon tey kama yar ak kama jur yëpp ma di ko bokk ak ñoom surtout ki ma yar parce que yar dafa metti mais yaa mbisi njoon maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd yal na xëppee ji àjjana mook sama yaay ju baax ja waaw dafa déddu moom moo ma yar maak ay doomam ñoo bokk benn baay mu Elisabeth Sarr sama rakk yi yërëm ma yër ma waaw wallaahi moo tax suma xol tooy na parce que maa ngiy gërëm daal samay waajur di gërëm waa gàddaay di gërëm ki ma yar billaay wallaay ki ma yar mënuma koo fay parce que yar na ma ci jom yar na ma ci bugg nit yar na ma ci xam itamit nu may dundeek doomi aadama man du ma dépassé kenn voilà jigéenu jàmbaar la gor rek moo sonn du yolwaan terus na ñaan abinduura ko woyoon waaye wax ji dëgg la moom liggéeyam yëpp mooy lay suuf si mhm. lu mu am ci béton ci chantier yi dem jaay ko lu mu ci am dundal ci njabootam mhm. euh, et dafa njaboot mu ngeeg juróom-ñetti juróom-ñetti bant juróom juróom-ñetti bant Pape Cheikh juróom-ñaari di ay jigéen kenn ki góor la mais boroom bi dafa def ne àndul ak xelam euh, loolu nag di kéemaanu suñu boroom ah. ay ci ci ci misaal àddina ak ay jaar-jaaram euh, mais nag soxna si yaakaar naa Pape Cheikh tey ñi ko yar buñ ko fekkoon fi mu toog du defaraat jotaayam mm. li ma doon wax sànq mooy réussite du aadama bi ngay xool Sophie nag euh, yàlla wërsëgale ko mu am ngor euh, peut-être wala ma ne ñu yar ko ci ndax dégg nga li mu wax nee na moom du yalwaan Euh, waxaat nga ko sànq euh, te ruus nga ñaan parce que bu la tàllalee loxoom nga xam sa soxla mu def ko Pape Cheikh ñaar ba ñett yoon boo ko gisaatee da ngay daw loolu nag di wane ne njàmbaarteem ak jomam ak fulaam terewul nag am na ay sambabo yoo xam ne su so fi dañuy toog ci ker gi su fi ne ci naaj bi di lay su ker gi seddee ñu ñëw diri ay saakoom yóbbu dem jaay donc muy loo xam ne aussi euh, lu ñu war a dénoncer la mais ni nga ko waxee rek que fii mooy quartier général dañ fi wane ay jigéenu jàmbaar te man wax dëgg fa yàlla su fi neex mooy tolluwaayu émission bi peut-être euh, euh, am na ñu bëri ñoo xamante ne bëgguñu euh, di fés waaye ñun télé bi rek la ñu am. loolu mhm. rek la ñu yore pour di wane yenn yi donc amuñu leneen lu dul di ko wane ci télé bi saa yoo fi wane koo xamee ni peut-être war nañu ko dimbali. dina am mhm. ay nit yu réagir Pape balaa may ñëw ci photo bi déjà rek maa ngi jot yóbbante wu Mohamed Djibi Coy waa No Stress Land. Mhm. ñoom nee nañu ma jox ma joxe numéro parce que dinañu ko jox ration complète. Ndiaye ak waa No Stress Land. macha allah y' a d' autres gens qui numéro bi kay Pape Cheikh dañ ci sawar di ko. di ko di ko waaw bu la boo après nga joxe ko. de toute façon euh, mu ngi noonu kooku mooy sunu jàmbaaru tey ji ci euh, ASER ji. Mm. Euh, ñuy remercier bu baax encore une fois Pape Cheikh Habib Faye. Mm. Habib Faye ak Modou Diop. Ah. ñoom ñoo liggéey liggéey bu rafet bi. Ah. parce que comme dañ ne confinement. Mm. gars yi du ñu mën a dem toog leen seen kër gaa tooguñu suñu kër sax <laughs> ñu ngi ci télé bi. mais du ñu mën a def yenn déplacement yi donc Habib Faye di ko def nag ak xol bu rafet jóge këram dem ba gàddaay ci géej géejawaay dem wan leen euh, reportage bi nga xamante ni si ku ci ku nekk nag di gor euh, war nga cee mën a gis sa bopp ñu koy remercier bu baax a baax moom Habib Faye je de messages euh, dites à Pape Cheikh le directeur de l'emploi a mhm. décidé de trouver un emploi pour le fils de la dame Sophie qu'on montre sur la TFM mhm. doomam bu góor bi doomam bu bi mënul liggéey parce que ah. dafay dafay dafay crise dafay daanu mais c'est sûr que ñàkkul ci njabootam kuñ mën a jël mu liggéey waaw parce que comme li wax góor baax na jigéen baax na ma fi ay yóbbante yu bëri de. macha allah waaw ay yóbbante yu bëri macha allah. macha allah gën a bëri. waaw ay yóbbante yu bëri. parce que Baye Cheikh ñett daf ci feeñ. waaw. soxna si dama ne lii su ko récupéré wul. Hmm. mën na mën na nekk loo xam ne dafay naax saay. Hmm. Hmm. fii mu toll di jigéen. am na ñoo xam ne ñii mën na leen jur. Ah. te boo leen rombee ci feu yi. ñu ngi taxaw dara jotu leen. dëgg la ñu tallal seen loxo. dëgg la de. te def li mu ne mi ngi gërëm ki ko yar wax na dëgg de. Baye Cheikh <laughs> boo santee Sarr Fatia leneen tegu ci Sarr rek a ci tege. Mm-hmm. dafa am jom mhm. soxna si moo tax dëgg dëgg na appel yi bari mhm. ñu dimbali ko mhm. ñu xam ne daal dëgg dëgg daal bés boo gis bés lay fay wala muy lebal bés te man leer na ma ne am na koo xamante ni bu ci dugalee loxoom rek wax ji jeex tabal waay am na koo xamante ni bu ci dugalee loxoom rek wax ji jeex muy première dame na ko ci tabal waay voilà Adjatou Mariam Faye xam naa bu ko gisee euh, moom euh, euh, dina wax ji dina jeex donc ñu ngi koy ñaanal bu baax moom soxna Sophie xam naa Seyda Fat Bintou dinañu ko ziar fekk ko ci studio ba mu nekk moom it dina ci sànni Sénégal nag dafa bëri euh, jigéen yi ñun bi ñu nekkee xale suñu yaay yi nii la ñu meloon di taaba taaba di leb diwlin di ñafe sama yaay jaay na sama yaay jaay na ngalax sama yaay jaay na fonde sa à ñaar téeméer ñetti téeméer yi mu ci am après dem na joxe ko am na benn image boo xamante ni on va partager ça euh, ci euh, écran bi boo ko gisee sa yaram dafay daw ci jigéen yi mm-hmm. ni ñi nekkee jàmbaar mooy image bi nga wane sànq Pape Samba mm-hmm. di fajar gi par exemple bu xëyee da ngay gis jigéen ñi dugg ci car rapide yi mhm. yore seen ay paanu jën mhm. di dem di wër di jaay mhm. yooyu yëpp mooy wane ni daal Sénégal dafa bëri ay jigéenu jàmbaar surtout maire yu njaboot yi dégg nga li muy wax lu mu ci am Pape dañ koy dem defarali seen yóbbu ko ca kër ga donc ay sofi am nañ ci ay junni junni soxna si ñu doon gis sànq ci écran bi da koy firndeel Pape Cheikh bu ñu xëyee eh, xëy bu ñu dara ci liggéey l'essentiel bi mu la wax bu ñu sàcc na lew donc la leen yitteel mooy li Jeyna ba wax njaboot moo leen moo leen sonal donc ñu ay jigéen yoo xam ne euh, dañ leen di ñaanal borom bi mu may leen kattana may leen gudd fan ba ñu mën a fekkee euh, gar mi seen njariñu njaboot mais Fati mhm. kenn rek moo war a tiit mhm. ki nga xam ne bu maire bi solee saako yi ba teg ko mu sàcc ko mu jaar ci guddi goroo ci saako yi dëgg la de kooku de ma te kooku de war na tiit mbay dëgg la ah. dëgg la kooku moom dëgg dëgg moom mi am kattan yoonu saako wallaahi moom waroon na jël tamit